alay salaatu wasalaam ñu gisoon ci suba nag ñu ngi fi nga xam ni mooy euh, Cambérène fa lañ nekkoon fa la ñu ubbee li nga xam ni moom mooy appel bi waaye tey nag euh, comme ngoon si niñ koy faral di defee euh, ci li nga xam ni mooy ndigal seen alimam ndax fi nga xam ni moom la ñu nekk muy ngor ci xunta bi mu amoon histoire bu doy waar boo xam ni am na fi ci li nga xam ni moom mooy fii ci xunta bi def nañ ci ay reportage yàgg nañu dégg li nga xam ne mooy histoire bu am solo bi fi am maanaam ci li nga xam ne moom mooy Seydina Limaamu leeram nekk fi ci lu ëpp junni at laataa muy feeñ ci li nga xam ne moom mooy laataa muy xam ci li nga xam ne moom mooy ban xeet lay wàcc yàlla dogal mu wàcc ci Afrique yàlla dogal mu wàcc Sénégal waaye yàlla dogal mu wàcc ci xeetum lébu ba tax ñu ñun duñu ñu def lu dul santaat yàlla bu baax lu ñu def lu dul nag dugg ci euh, pèlerin yi xool seen ay réaction ban ban ban ban la ñu am fekkewaat li nga xam ne moom mooy 142e appel euh, de Seydina Limamou Mahdi alayhi salaatu wasalaam nañ dem na xool réaction ñi nga xam ne ñooy pèlerin yi Laay Maxtaar Laay Maxtaar yaay boy laay na euh, rafet na yiw na Laay Maxtaar ah, yiw na de rafet na weex bi moo weex bu tàll bi moom rafet na ban yëg-yëg nga am fekkewaat 143e anniversaire du Seydina Limamou Mahdi ah ñun de ma ak samay doom yi dañ ci am bég-bég bu bare parce que ñun tey si suba sax la ñuy jógee Amérique ñu ngi koy mais ñoom c'est la première fois ñu ngi koy assister directement fii si tëj Sénégal mu tombé ñu am ay vacances nag ñu bëgg leen indi jox ñu xam seen diine waaw. fan lañ jógee. Rhode Island man ak sama soxla man ak sama euh, borom kër bi fële Rhode Island la ñuy organiser appel chaque année. dama ñëw fekk leen ko nag ñu koy def léegi ba mu gën rëy nag waruma leen waxal sax parce que man tuuti laa fa mais mu rëy rëy ba léegi États-Unis ñëpp foofu la ñuy ñëw Rhode Island chaque année di ko fa passé. année bi yéen koy waajal. waa ñu ngi koy waajal le 11 mars incha allah ban yëg-yëg nga am tey fekke waat li ni mel nga namoon ko waaye gis ni lu doy waar. spécial. c'est spécial parce que dama indi dañu indi sañuy doom ndax ñu fekkee ko ndax ñu xam ko ñu vivre ko surtout looloo ci important pour am thème bu am solo bu ñu soulever ci année bi comme chaque année nuñ koy defee la paix et le développement à la lumière de Seydina Limamoul Mahdi ah ma xalaat ne que jàmm ji moom tey si islam la jëkk islam ci boppam jàmm religion de la paix la donc macha allah si ñun la njëkkee eh, tout am nag maam li maamu di ñu ko fàttali macha allah loolu rek laa si mun ah te xam nga tam si jàmm la le développement mun a am il faut ko jàmm suux pour que développement am donc suñu amee diine ba xamante ne loolu rek lay yëkki loolu rek lay wax loolu rek la gën a ah, di ah, farlu ñu ciy farlu. développement incha allah daf kontaan nañ. Ah, ah, dégg nañu olof. tuuti wante mën nañ làkk anglais. how are you. ban yëg-yëg nga am. Ah? ban sensation nga am. ban naan nga am. je suis contente. I'm happy. yeah. happy. yeah I feel good. ndeysaan gis ngeen de macha allah ñu ngi jóge ba Amérique ñoo fekkee li nga xam ni moom mooy euh, appel bi euh, macha allah yaay booy ñu ngi lay ziar. ñu ngi nangu ziar col gi yiw na rafet na laay. laay waxtaan laay laay laay. man yëg-yëg nga am tey. kontaan rek mbégte rek uyu si sama oote maam laay waxtaan laay laay laay. ban jàngat nga am ci thème bi nga xam ne moom lañ fi euh, soulever ci année bi mu jàmm. ak yokkute jëmale ko ci jàngaleb Seydina Limaamu Laay Maxtaar Laay jàmm loo ko jënde jàmm na Maxtaar Laay jàmm si nga mën a nekk dund dund gu si nga mën a jaamu yàlla jàmm loo ko jënde jàmm na ko Laay Maxtaar te si la ñuy dund itam Laay Maxtaar Laay Laay Maxtaar ñu ñaanal la jàmm jërëjëf Laay Maxtaar ñu ngi lay delloo ziar Laay kontaan rek Laay kontaan rek kontaan rek laay Mokhtar. ah kontaan de mbég mi la mbég mi mbég mi <laughs> yaay booy ñu ngi lay nuyu. ñu leen di fay bu baax a baax. laay Mokhtar laay Mokhtar. yëg-yëg nga am ci appel. kontaan kontaan rek xol bu sedd guy macha allah di ñaan yàlla ñu teew ko appel yu bare bëree bari bëri. waaw waaw yàlla doolu wér gi doolu Sénégal jàmm ñu yàgg koo teew bu baax a baax macha allah kontaan nañu. lan nga jàngat ci li nga xam ne moom mooy thème bi jàmm ak salaam yëma jëmale ko ci yokkute ci jàngaleb seen Limaamu jàmm xam nga jàmm moom mooy lépp loo mën a am te amoo jàmm mel na ne amoo dara jàmm moom c'est la mooy lépp waaw àddina lu neex neex te amoo jàmm mel na ne amoo dara moo tax suñu woowee si jàmm laay maxtaan thème tey dañ see kontaan lool kontaan si lool ndax xam ne actualité la waaw thème mu actualité macha allah kontaan nañ bu baax. macha allah ñoo ko digg déggandoo laay maxtaan lu dul jàmm jàmm ko gën xanaa ñu wëlbatiku tuuti rek laaj sunu papa yi nga xam ni ñoom ñoo fi toog laay maxtaan ñu ngi leen di ziar. mu ngi dolli ziar. di leen ndokkale ci bés bi. yàlla yàlla defal ñu jàmm. ñu yëg-yëg nga am tey ci dama daanu fi mu nekk nii daanu laa mu nekk nii yëg-yëg bàyyi laay wallaahi dama yàkkamti bés bi jot sax ndax ma yàlla man ma jàppale ñu delluwaat si yàlla delluwaat si bàyyi yàlla defal ñu jàmm dem jàmm si dëkk bi dëkk bi dal ñëpp am dal yoon la ñuy ñaan tey fii si bés bi. yàlla defal ñu ko defal ko Sénégal yëpp ci darajay Baay Laay ci darajay Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lan ngay dénk ndaw réew mi jëmale ko ci li nga xam ne moom mooy jàmm ak yokkute. dal rek laa leen di dénk dal jàmm ak salaam loolu la Sénégal laaj nañu dal bu ñu dalee ba bu ñu dalee moom li ñu bëgg yàlla dinañu ko defal Baay Laay dina ko defal moo gën xiiroo bi ŋaayoo bi dal te kilifa yi nag toog waxtaan. waxtaan daal lañu soxla dañu toog waxtaan ñoo bokk ndey bokk baay bokk suñu Sénégal amuñu fenn fu ñu jëm fu dul Sénégal Sénégal lañu am amuñu leneen nañu dal nañu toog waxtaan bu ñu toogee waxtaan rek dinañ trouver terrain d'entente jërëjëf. jërëjëf koo ci dégg rek ci kàddoom mi ngi fas yéene laaj ak di bëgg ñuy euh, fësal li nga xam ne moom mooy jàmm di ndax Sénégal jàmm rek la baaxoo di def papa ñu ngi lay nuyu. laay maxtaay Euh, loo ñu mën a sànni tey ci kàddu ci bés bi. da ngay war xam naa la fi nee na kontaan nañu yàlla yàlla fekk ni ñu déwénee téye rek ñu gët fi neex su bàyyi laay. axmal moom laay ngay dénk ndaw ñi. lan ngay dénk ndaw ñi. ndaw ñi xanaa ñu góorgóorlu rek fa góorgóorlu rek jàpp jàpp jàpp ci seen diine rek te góorgóorlu rek moom rek moo moo moo moo moo moo war. jërëjëf. ba tey ñu ñëw ci li nga xam ne moom mooy ñu ngi lay ziar Laye Mokhtar. Laye Mokhtar Laye. yaa ngi jaay de da nga bég. waaw waa kontaan rek wax dëgg yàlla. yëg tay non mbégte rek mbégte rek wax dëgg yàlla ak sant yàlla bu wér a a wér ak sant maam Baye Laye sallallahu alayhi wa sallam di kontaan di wax dëgg yàlla di ñaan yàlla ñu fekk ko at yu bëree baree baree baree baree bëri yàlla dolli xéewal dolli wërsëg dolli wér dolli jàmm ci réew mi ak ci àdduna bi wax dëgg yàlla soxla nañ jàmm lool nañu ko dox waxe ko jëfe ko waaw waaye ñaan jàmm rek doyul waaw mais di sant bu baax di kontaan bu baax a baax ci lii nga xam ni wax dëgg yàlla fekke woon nañu ko daaw di ñaan yàlla fekkiwaat ko rek yàlla indi ñu ci kon dañoo war a sant yàlla bu baax a baax a baax di ñaanal suñuy kilifa bu baax a baax a baax nag wax dëgg yàlla yi ñu meññ wax dëgg yàlla tàggat ñu ci lii ba tey wax dëgg yàlla ñu ñu yeewu ci lii daal wax dëgg yàlla ñu ci sant lan ngay dénk ndaw ñi ci jàngaleb seen alimaam waaw di ci góorgóorlu bu baax rek comme ni ñu ko ni mu ko waxee rek parce que seen alimaam moom njàngaleem képp ko topp rek doo ci gis ngaañ ndam rek nga ciy gis kon nag ndaw ñëpp maa ngi leen di éviter ci loolu ñu gën a góor góorgóorlu gën a takkaat suñu ndigg wax dëgg yàlla seen alimaamu li mu jàngale moom bu ñu xoolee ci njabootam rek war nañoo gën a mën a góorgóorlu bu baax a baax a baax waaw ndaw moom wax dëgg yàlla amul lu dul jaamu yàlla parce que yàlla suñu borom ndaw ñi la soxla waaw parce que mag ñi moom seen wàllu wéy na amaana def nañ ñu war a def ba mu dem ñun la suñu wàll des kon nag ñu gën a góorgóorlu eh, di leen sant bu baax di leen gërëm bu baax a baax di leen ñaanal bu baax yokk ba yokku asalaamaaleykum wa rahmatulah wa rahmatulah. jërëjëf papa ñu ngi lay nuyu Laye Makhtar. laay laay laay laay. man yëg-yëg tey nga am fekkeewaat appel bi yii ci 2023. Euh, xanaa di ci kontaan rek di kontaan tamit ci équipe bi muy 2S ci seen euh, rafetal bi ngeen xam ni chaque année yéen a ngi koy def di ñaan yàlla seen liggéey yàlla barkeel ko. di sant bu baax a baax di wax ci Seydina Limaam moom dama ci sawar torop ndax bokk na ci ay mooj mujjizaatam fii suñu borom nëbb na ko fii mu làqatu fi ay junni at avant ñu koy xam di xeet bés guddi gu ne mu wër àdduna juróom-ñaar di xool ci ban xeet lay wàcc yàlla wan ko mu wàcc ci xeetu lëbb mu ne xeet yi mu war a wàcc yëpp xeetu lëbb moo ci ëpp yërmande Seydina Limaamu yàlla wàcce ko fii loolu nekk suñu mbégte ak yeneen ak yeneen ni mujjizaatam kon ñëw bu ñëwee tey jii àdduna di dox bañ ñu woon Limaamul Mahdi mi li muy woote du woote dara ñu leen di wooye ay malaaka naan xool leen malaaka yi ñu ngi sol seen i weex nii xamu lu ñu def dara appel bi di dem di dem ba téeméeri at ba tey ji mu romb ko di dem lu dul dagg du yàgg te mbir yàlla du ay neen te Seydina Limaamu nee na lii sama woote bii ma woote ni aajiboo daay yàlla ya masharal insi wal jinni inni rasulillahi képp ku ko woote te doo yenent balaa déwén di nga laq wala nga alku bàyyi laay nag mooy ki jur Seydina Isa Ruhulaahi maam Seydina Isa yàlla dogal na ci ay mojajal man mii di wax ak yow sama bàyyi la fañ la judduwaale Seydina Isa moo ko doxloo ŋaangloo ko tifli ci gémmiñam mu dégg alxuraanul karim ñu koy wax Mamadou Laay Mbeng dëkk ca Géejawaay rafetlu naa seen initiative bi rafet na torop damaa kontaan sama xol dafa fees yal na la yàlla fay dama lay seetaante la sama xol dafa nekk sew maa ngi ko wax sama maa neex waaw jërëjëf Laye Makhtar. sàkku ñaan jërëjëf. macha allah ba tey aajiboo daaya laahi yaa macharal insi wal jinni ini rasulillahi ilaykum euh, ñoo ko déggandoo ci li nga xam ne moom mooy kàddu yu rafet yi jëmale ko ci jàmm ak salaam ndax senegal loolu la ñu baaxoo di gis waaye loolu lañu ñu sàkku euh, mu di fi am à chaque fois moo tax nit ñi euh, di ñaan jàmm ba tey ñu ngi gis taar bu rafet gi ci soxna yi macha allah. ñu rafet loolu te jekk du ma def lu dul approché leen rek nuyu leen laay waxtaan. dellu ziar laay col ju yiw ji col ju yiw ji ju sell ji lan la lay def. mbégte la laay muur Maxtaar ndax gars yi si dinaa dem yëpp a sell macha allah. moo yëg tay contentement lu toll ni def Seydina Limaamu mu yemul ak leen ci àddina bés la boo xamante ne contentement la muy bés bi gën ci ñun ci at mi vraiment. di ñaan suñu borom yàggal moom Duudu Maxtaar ak njabootu bàyyi laay gépp ne ci kaw suuf. ayca macha allah gis nga de ba tey ñu dox ndànk rek jëmale ko ci ci ci soxna yi ñu ngi lay ziar. delloo ziar. si jàmm. waaw waaw maa ngi mel ni yéen pare ngeen pour jaayu si kar de. waaw bu baax sax. kontaan rek kontaan mbégte rek. xol année nuñ koy defee. chaque année rek waaw di gën a kontaan chaque année buy ñuy gën a kontaan rek. waaw. loo yëg. xanaa mbégte rek laa yëg kontaan loolu sa appel ñaan yàlla mu nangul ñu ko. macha allah lay maxtaar dañoo dañoo dañoo seetlu diine dañoo seetlu diine rafet rafet ay gaa ah allah ba tey ñu ngi nii nañ avancé xool tuuti Noiret mënul ñàkk. laay laay delloo ziar baax. maa ngi sant yàlla am mbégte ak contentement rek ndax lii ku ko dund rek mënoo koo xam macha allah. ngay wax tey jëmale ko ci jàmm ji nga xam ni moom lañ fi teg ci tem ak jàngalem seen alimam ak yokkute. Euh, ñuy wax euh, sama xol moo fees mënu wax moo tax mais ñi sant yàlla bu baax jàmm ak macha allah moom da lay sànni xeer waaye moom mënoo ñàkk mënul ñàkk da nga koy sànni xeer ma ñoo tooñ la ziar nañ la. delloo ziar. lan nga yëg tey. yii li ma yëg moo foo barki Baye Laay suñu xol moo fees yi dafa neex trop wóor na Baye Laay. lan la lay def en tant que ndaw ak jigéen soobu ci diine ji. diine gi dañ fay fekk suñu maam yi ñu topp ci seen ginnaaw te dara ñaawul boobu ba léegi. macha allah nañu dox na le laay maxtaar nañu avancé ba ci kanam ñu xool suñu yaay yi nu ñu toogee ci li nga xam ne moom mooy appel bi yaay booy ñu ngi lay nuyu. laay maxtaar laay laay laay. loo yëg tey. mbégte ak sant rek ak gën a lan ngay gis boo xoolee jigéen ñi ak ndaw ñi nu ñu sooboo ci diine seen aliment parce que loolu la ñu am loolu la am loolu la si loolu la ñu juddoo si la yaroo. loolu nag ñu xam loolu la am amuñu leneen lu diine gi loo bokk rek lu diine rek bokk si dara xeetu naa di sant bu baax rek laay ma taal. yaay booy loo yëg tay loo yëg tay loo yëg. kontaan rek kontaan rek wax dëgg yàlla ma appel bi moom macha allah macha allah yàlla nañ si dugg si bisimilah génn si alhamdulilah rabil alamin macha allah wax dëgg yàlla macha allah kontaan nañ xol yëpp sedd na wax dëgg yàlla. Aïcha ba tey Laye Makhtar 143e euh, anniversaire de l'appel de Seydina Limamoul Mahdi alayhi salaatu wa ñu gis ni jigéen ñi ñu ngi soobu ci diine ji waaye di tudd ci baatu laa ilaha illallah ba tey ñu ngi ni ñu gis ay mag ay xale waaye mënul ñàkk daal naa mënul ñàkk mënul ñàkk mbégte laa looy ñaan ah lu may ñaan macha allah laay nan la lay def nga nekk ndaw soobu ci diine ji nan la lay def nga nekk ndaw soobu ci diine ji mbégte rek lañ si yëg de. macha allah rafet na rafet na laay mataan. Euh, sang bi mi ngi dugg si maam Libaas Laay fas yéene waxtaanee euh, ci li nga xam ne moom mooy euh, la paix et le développement à la lumière de Seydina Limaamul Mahdi alayhi salaatu wa waa ñu dem rek xool li nga xam ne moom mooy dugg si bi ñëwaat ci plateau bi.